assemblée num tuddu ci wolof pencium ndawi réew mi kon wa réew mi ne len ñun kat dañu bëgg ngeen nekkal na fa digënté ak président bi suñu wotee lo xam ne dafa jëm ci ñun su dé laal na yermandé voté len su dé askan wi gisu seen bop boycotté len kon déssa ni nga doon campagne diw mo yaq fi diw mo def fi diw nanga bo xasse ba dugg fofa fa bobu sañ-sañ damaa jàpp ne balaa ñuy dem assemblée waroon nañ dajale ñëpp benn séminaire boo xam ne dañuy dajale opposition yi ak ñu nekk parti au pouvoir teg leen wax leen responsabilité yi gàccu ci seen mbagg balaa ñuy yegg ci assemblée ba suñ ko defee dootuñ yëg ci ay banc dootuñ yëg ci ay siège dootuñu xastante dañuy xool lan mooy intérêt réew mi mm-hmm. loolu war nañ koo xool kan parce que casquette bi ngay yool bi ngay campagne bokkul ak casquette cest à di que damay wut ab xulookat benn Amidou Diop boo xam su ma ko fa tegee sa à lu ma teg mu jug yuux wax kii pour man loolu war nañ ko civilisation ça dépassé na loolu aussi ñun Sénégal dañuy xool ci facette civilisation dañu ñun dañ ne ñun dañoo civilisé yu coow yu bari bari kii dem rek wane na ko dañoo fa te ci ñëpp ñibbi pono tàkkul amul problème am kon loolu dafa war a dem ba feeñ foofu da ngay des fois bari da ngay jékki-jékki ñu ne benn assemblée bu doon xeex à mais da ngay jàngat est ñi ay nit lañu image boobu ni muy ñaawee ceew yow noonu lay ñaawe ci sa réew ci bu jógee woon ci sa réew donc war nañ di am ak ñoom ay entretien yoo xam ne dañ leen di teg ne leen yéen kat lii moo leen di xaar fii kat nu mu tudd ndaw ndawi réew ñi la tudd li ngeen soxla yëpp jox nañ leen jox nañ leen logement jox nañ leen oto jox nañ leen crédit jox nañ leen salaire jox nañ leen carburant ba xam lañ lañ bëgg mooy kenn ku nekk représentel maanaam maanaam localité ba nga dëkk moo xam ab village la moo xam ab région la moo xam ab quartier la sax fexeel ba yow nekk fa koo xam da nga naan man fii représentation maire laa fi yor fexe ba loolu maanaam nga nga nga taxaw ko soo ko defee léegi Sénégal daje dama daan gis da ngay jékki-jékki dégg gis benn député bu ñëw toog lakk joolaa ki lakk pël kii ñëw lakk wolof ki lakk séeréer loolu dafa neex parce que kenn ku ci nekk séeréer ba koy seetaan séeréer rek la dégg day gis boppam ci pencum ndawi réew ñi xam ne kii kat suñu amee lettre boo xam ne ni dañ koo am fële ci Touba Refane mën buñ ko joxee suñu député bu ñu dee dana ko wax ci séeréer ñëpp mën cee jot bi ci des mooy responsabilité président assemblée man pour man amul problème ci nga nekk premier ministre que nga nekk parce que ñaar yëpp benn bu ci nekk ay responsabilité yu diis la parce que président assemblée aussi leader lay dégagé tey yow yaa fay nekkal ki nga xam mooy président de la république waaye yaa dox diggante député yi ak de la république donc day nek ko xam ben benn sa homme de confiance ni politique di doxé nak légui nga xam légui non la état yeb di doxé parce que bo amul poigne ci li ngay defit it décider dara donc il faut nga teg fa ko xam non seulement sa nit lay don parce que boo fa tegee keneen da fay nek sa ki te it am na xam blocage la ci état. yaakaar nga ni Sonko kon mën na mën na jiite. non mais mom PM gi baxna parce que li tax waaw PM bi baxna parce que li tax baxna moy au moins amna ño ñoo ñi ngi sédd ni suñ défé dara mën na rek seen dig wala mën na taxaw. dénoncé leen wala mën naa wax ak ñoom ci suuf loo xam ne bo ci image bi lool lool loolu lañ gis ne xo lii am ci biir politique ci suuf doo xam li li li nga xam ne mooy am ci biir li ci kaw rek nga mën a wax mais mu nga gis mooy sa dire gaa ñi xëy na ñemewuñ ko ñeme gu toll ni tey bu bàyyi woon gouvernement bi dem assemblée ndax da na am yenn contrôle yi te comme dafa am yu baree bari yu leen di xaar man pour man day dafa waroon rester ci PM bi ba fii ak deux ans mu leer ne lii nii maanaam tegu na ci yoon mu door a xalaat ci leneen parce que tey moom mooy braawu moom mooy moom mooy mooy mooy mooy siso lañ moo moo moo moo ko moo président de la république mu koo ñàkk assisté parce que nit ñi xamuñu Bassirou Diomaye Faye yàlla moo ñëw ak ay dogalam wax ne yéen bëgg leen man maay fal nag mais Sonko moom moo ko fal moom mi ko fal responsabilité bi yëpp ci moomam lay lay sukkandikuwaat parce que boo gisee tey nit ñu bari duñ tudd président de la république moom rek la ñuy fay parce que moom la yàlla sa borom jox euh, jox li nga xam mooy couronne bi kon léegi li am solo mooy place bu mu ci mën a nekk baax na mais fii mu nekk nii ci lay gën a mën a am vision ci état bi ak yenn ministères yi ndax na ci gaa yoo xam ne nii wax naa ko fii demuñu assemblée parce que dañoo gëm projet Pastef de dañoo bëgg a dégg dafa am ay ay affaires yu ci nekk yoo xam ne nii waaw non non loolu mooy li wér de am na ñoo xam ñu ngi transhumé di dem am na beneen am nañ beneen responsabilité mooy tey bu demee nañ daan def di wéqi kees ak di def nangam loolu lépp dañ leen war a woon ne c'est-à-dire pàccoo dafee war a jeex bi ci desin mu am solo mooy su resté ci eh, nekk nekk nekk nekk nekk nekk nekk premier ministre mhm. war na mën a lancer benn dialogue tey opposition bi yëpp war nañu mën a teg seen i jaaj c'est-à-dire moom mu fexe ba woo leen toog am benn ëmbul boo xam ne gis nga ku yàlla di xeexal doo xuloo ne leen kaay leen nu waxtaan ci réew mi mhm. même yéen bu ngeen bokkul proposé leen ma ñi ci seen ginnaaw bu ñu amee ay cadre yu mën a doxal réew mi proposé leen ma ko te loolu président de la république moo am pouvoir bi waaye Ousmane Sonko su ko defee mu loolu réussir ku ci bañ nag nga xam ne yow saa à dire intérêt réew mi intérêt sur la li la intérêt yow sa intérêt personnel la mooy tey bu fekkee ne soxna jaara li ngay def man nga ko man naa ko damay fexe bu fekkee yow la ko yàlla cëralee ma fexe ñëw di la jox samay xalaat man waaye du ma ne noonu li fekk joxuñ ma li ñu yor soxna jaar li ñu jox soxna jaar sama xalaat bu rafet du génn loolu soo defee bu la day daal di am parce que problème bi mooy mën nga ko mën naa ko waaye yow la yàlla dogal nga koy def comme yow la yàlla dogal nga koy def am naa ay xalaat yu rafet dama ñëw ne la mooy boo toogee woon nii boo doon waxee nii boo gisee nii da rafet su boobaa boo réussir ñu bokk réussir mais du ma ne tant que soxna jaara jógal fi mu toog man du ma am xalaat bu rafet loolu nag dañoo gis ne feebar la sax ci askanu Sénégal <laughs> Sénégal duñ la duñ la li ngay def defee nii de dañ naan lan maanaam nañ ma ko jox man ma doxal ko loolu la Sénégalais def maanaam dindil diw jox ma man ma def ko su ma ko defee maanaam xëy na ci lay gën a ci lay gën a jaadu kon mu nekk fii mu nekk fee yëpp man sa femme tamit jàpp naa ne amul amul sens mais mu nekk ci primature nag ci lay ëpp contrôle ci lay ëpp vision ci li nga xam ne ni mooy Sénégal 2050 bi ñu ñu tegal muy projet bi. incha allah alors c'est important ñaari ñaari ñaari intervention yi ñu fi am yëpp. Mhm. Euh,